mbokk yi nuy naa leen ku ne ci turam ak santam fi ñu waay di dégloo ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu seen mbokk seen xarit seen doom pa Ousmane Diouf dellu si waat ak yéen ci another episode of lima gis Banjul maa ngi tàmbal di di jéggalu ci askan wi jéggalu si ne géej naay def programme bi soppe yeeg am di jàmm yi yàggal ma ko laaj nag ma géej ko indi olof njaay daf dee faral di wax ne kuy oddoor làmmiñ su noppee rafle te ñun kat yàlla may nañu ñu am sunu làmmiñ mun a waxtaan ak askan wi yokkalante xalaat di gindiwante kon lo tax ma lon len programme bi may oye lima gis banjul jam ak pexem yalla ak dogalam galankori aduna taxna na jamono jiñ tollu ni munuma len ko indil lu bari mané fi ci Gambian Talents li ñuy uyo dañ koy jema nuru ci lu bari ma len fatali di len faral di wax lu waay di uyoo daf koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi waxtu wu nekk nag ñu jéem suñ kéemtalaay kàttan pour jëfee lii based on li nga xam ne moom lañ am ak fu suñ man-man ak suñ doole tollu lu ci des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla luy xew suñu dëkka ak ci àdduna bari na ba nga xam ne ku ko sànni mbàtt mu toj jotaay yi yépp ma war see mun a wax askan bi yaakaar ma ci yaakaar ñu ci pour ñu wax ci yàlla def personnel mënuma cee wax waaye nag alhamdulilah ci beneen boor ndax yàlla dimbale na ma ma sos loo xam ne maa ngi jàngal ndaw yi pour bum nekk Pa Ousmane Pa Ousmane Pa usmaan rek loo xam ne su fi Pa Ousmane nekkuti tamit dina mun a continuer kon su ngeen seetee ci Gambian Talents plateforme bi di ngeen gis ñuy jëfandikoo loolu bu baax a baax a baax gis ngeen ndaw yi ñuy jàngal métier ku fi ñëw benn fan ñaar meyal boromam ñett bi si juróom benn weer nga gis wécceeku wécceeku bu bari ci ñoom ci tenk ma indil leen ndaw yi nga xam ne musuñoo dem school pour jàng angale walla bépp façon yi jàng wala boog ndaw yoo xam ne jànga nañ mënuñoo jeexal school ñu drop out wala boog ndaw yi nga xam ne demoon nañ am iteexa teexa dem ci backway bi muy yooni gannaaw bi dem through irregular migration ñu delloo si leen walla ñoom ñu dellu si seen coobere boppa muy voluntary returnees ñu jàppale leen jindi leen tatagal leen jàngal leen métier ci multimedia wala boog ñi nga xam ne ñu ngay dem ci université bi ak yeneen bëre bu jàngu yi ci réew mi te amuñ di opportunité pour am practical experience ndaw yi laa nekk di jàngal ci Gambia kon gis ngeen ne su fi Pa Ousmane toogutee sax di def i programme yéen a ngi gis ndaw yi ñuy tàggat di leen jàngal di leen tatagal dama dee def a lot of behind the scenes work in addition to that Seattle gii ma nekk Gambia waxtu wu nekk ma wax leen ne jamono dafa dox te suy dox te war a dox ànd ak moom te may jéem a jëfee loolu nag amaana nag duma mag alhamdulilah ñu bari dinañ ma gis di ma jaawale wala foog ne Pa Ousman mag la déedéet. alhamdulilah ñeneen fukki at yu correct sax amag amaguma ko du ma ne ñeneen fukki at am ñeneen fukki at sax amaguma ko ndokk kon loolu sant yàlla ci bim ñu joxee xalaat ñu mun di jëfee lii waaye nag ñu ngee gis suñ boppa ne ñu ngee mag moo tax léegi dañuy segga di tànn ci li ñuy wax ak ci li ñuy dugg ak ci li def suñ plateforme bi di Gambian Talents TV xam nañ ne mu ngee màgga lu mut ñetti téeméeri junne nit muy three hundred thousand people ñooñu nekk di toppa throughout social media diggante Facebook Instagram Twitter Snapchat ak all these platforms kon loolu tax na ba ñun ñu jéem a def li ñoo def jamono jiñ toll nii the past one month su ngeen ko seetee content buy ñëw si suñ page bi mu ngi raar du ngeen fa gis content bu bari niñ daan amee ten twenty different contents every day li ko waral mooy dañ jublu ci di gestu di kisi kisi di seet di segga ndax xam nañ ne ñi ñu yaakaar dañ bari ñu bugg a xam li xew ci àdduna bi dañ bari ñu bugg a séparate suñ bopp nag and rest nga xam ne duñ topp rek dégga tël ne matt ga dàmm na waaye luñ dégga luñ gis lu xew ci réew mi lu ne wala ci àdduna dinañ ci gestu def ci suñ kisi kisi ba mut ñu ñëw nag tegal leen ko yéen askan bi pour ngeen déglu loolu wala ngeen seetaan nan ko so that you can make an informed decision mbokk yi su loolu weesoo suñ yoo noonu ba pare ñu continuer ak yéen ci programme li ma gis bànjul li ma gis bànjul Banjul naqari na ma neexuma te it nekk ab doomi réew am naa sañ-sañu wax ci ni ma ko gisee kon ñu continuer ak yéen ñu tàmbalee programme bi tey ci waxtaane ci novembre 11 bési tey bii ci bés bu lëndëm la ci Gambia bés bu nuuru woon la ci Gambia bés bu Gambia ni jaaxle woon la muy ñaar fukki at ak juróom ci gannaaw lu waraloon loolu kat mooy ndiki bési tey bi yàlla dafa def ay soldaar jógoon di dox ñaxtu soldaar si ñu ne lan moo leen na xari woon ci niñ ko nettalee ci TRRC bi ñoom ak seeni njaboot ñu ne kat ñoom former President Yaya Jammeh Sana Sabally Edward Singate ba tuure ak Sadibou xaydara ñoom ñi nga xam ne ñoo toogoon ne Gambia li nekkoon foofu neexut leen ñu ne ni former président Sir Dawda Kairaba Jawara di doxalee réew mi neexut ko ñu dox ñaaxtu ne ñoom dañuy dem di tukki di dem peacekeeping suñ ñëwee duñu leen jox seeni allowances ñu ne dañ jël soldaar si wala military Gambia teg ko ci loxo Nigerian yi te loolu neexul leen woon ci jamono jooju comme jamono jiñ toll nii économique niñ nekkee ci biir réew mi jamono jooju kat Nigerian si ñoo doon contrôle armée bi amaana di men ñi nga xam ni ñoo doon liggéey ay doomi Gambian lañ waaye di senior command yépp ay nigérian ñoo amee woon suñ military bi ci jamono joju président bi ñu koy garde ñu ci bari ay nigérian lañ won lolu bokkoon na ci lu naxari woon yi ñu ne sen fay baxut corruption dafa bari ci réew mi there is no accountability there is no transparency lu bari la gaay joytu won ne moo kat ñom ñu fokk ne waxtu dafa jot ganna doomi réewi mënu ñu génnee nguur gi ci loxo sa dawda even though sa dawda was being elected by di Gambian people for good 29 to 30 years ñu ne ñoom dañuy jël réew mi yàlla def nag seeni mbokki soldaar yi jàppale leen ànd ñoom ca July 22nd 1994 yàlla may leen ndam ci liñ doon ut bal tàkku deret tuuruut comme niñ ko dee waxee saa daaw da génn réew mi dem toog Sénégal that serves as the beginning of a new Gambia of a new era for the Gambia a new dawn for the Gambia July 22nd 1994 di bëcc àjjuma mbokkay loolu weesu soldaar si jàppoon si bés boobu noonu ñi nga xam ne ñoo jiite woon am am am soldaar si ñi nga xam ne amoon nañ lii ñoom seen boppkat ñu amoon yaakaar bu bari ci jonta bi foog ne kat ñii dinañ leen jàppale dinañ def lu bari yàlla def nag seen yaakaar tas ci liñ jot a dégg ak liñ nettaleeg liñ taataan ci TRRC bi ñi fa nekkoon ñi ci participer ñi ci def ñu toog nettali ñu mel ni ñoom lieutenant Benyamin Tee nekk fii ci New York ak ñeneen ak ñeneen génn nga xam ne ñoom ñoo toggoon loolu ñu nettalil ñu liñ doon togga ak naka lañ ko toggee ñoom ñi nga xam ne ñoo si bokkoon ma ne ñu ne novembre 11 lan moo xewoon toog nañ jàpp ay soldaar ñu rey leen rendi leen jël ñii yóbbu leen ci firing squad si firing range bi nekk ca biir Kaama Ñambaay rey leen foofu noonu ñii ñu reyee leen fële ci Fajara Barracks ñii ñu jël tiye tëj ca Mile Two ñii ñu reyee leen fële ca Jundum Barracks ñu pare nag ñoom ñëpp bogo bogo gas kàmba gu rëy di pax mu rëy ne leen fa yulub dugal sànni leen fa nag daaw wala boog alia disia ñu gis TRRC bi dem foofu sa Yundum Barracks sulli pax yooyu ñu génnee juróom-ñeneenti nit seeni yeex 24 years after biñ leen sulee foofu ñu mel ni ñoom alaaji kaañ yi génn wax sa rôle biñ play si November 11 1994 ñu mel ni Lamin Koli génn na wax naka la contributé la niñ reyee ki nga xam ne mooy Fafa Niang ñu wax ñoom Dot Fall naka lañ leen reyee ñu wax ñoom lieutenant Basirou Baro naka lañ leen reyee ñu wax ñoom Lamine Elef jàmme naka lañ leen reyee ak ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci November 11 ñu ciy dunda ñu bari ñu mel ni ñoom Sadji Niankabaare nekk fii ci Amérique ak ñeneen ak ñeneen ñu xam ne participé toon nañ ci November 11 wala suspect nañ ne am nañ something to do with ñi nga xam ne ñoo am euh, jiite woon yëf yi ñu mel ni ñoom Basiirou Baro yal na yàlla yokk leeram ma sàcc rek wax leen ne leen li ma leen wax ne ñu ngi gestu the past one week or so yëpp ñu ngi busy di am ay interviews ak family members of these people tey si kanam nii rek in the next one hour starting the next one hour taaxeeru leen ci Gambian Talents di ngeen gis interviews yi ak documentary bi nga xam ne defar nañ ko ak family members yi nii ñoom jabari Basiru Baro ñoom jabari am um, am um, uh, uh, uh, Jibril Sey am Dot Fall ak ñoom seen seen family members yi ak yenn survivors yi seen boppa waxtaan nañu ak ñoom si kanam nii rek su ngeen taaxirloo ci Gambian Talents di ngeen gis loolu ñu ngi ciy liggéey fan yi yëpp comme ni ñu leen ko waxee kon ngeen dugg foofu ñuy ñaanal waa November 11 soldaar soosu nga xam ne reyoon nañ leen de dul bés boo xam ne dañ ko war a am ndamoo bés boo xam ne la xol yi dañu war a tooy ci Gambia bés boo xam ne la dañ ko war di fàttaliku di waxtaanee lii di wax taarix bi ma ne su fekkoon ne dañ am si ay ni toog rek nettali wax ne lii moo xewoon waaye dañ dem ba sulli ay palaas wax ñu ay yax yoo xam ne ñi testify toog si TRRC bi kenn joxul leen lem kenn joxul leen sukur ñoom seen boppa ñoo toog nettali wax naka lañ reyee fan lañ jaar ak liñ def noonu yépp ñoom ñi ci bokkoon yépp ñu wax ko ñoom Sana Sabally ñoom am am am am Edward Singate ñoom ñu génn a wax ñoom Alaaji Kaañi ñoom Seet Daabo ñoom am Alaji El El El Daabo ñi nga xam ne génn nañ wax ñoom ñépp niñ ci participé ak lan lañ ci def ak ban rôle lañ ci play ñoom ñi nga xam ne ñooy alleged perpetrators yi ñoom ñi nga xam ne ñoo rey ñii ñoom ñi nga xam ne ñoo feteel ñii ñoom jaay ponkal am génne nañ euh, wax ñoom JCB Mendy génne nañ wax am Baba Ndiaye naka Baboucar njaay Ndiaye ponkal génn na wax ni nga xam ne moom noonu la si participé tey JCB Mendy génn na wax wax ni nga xam ne noonu la si participé tey ki nga xam ne mooy am euh, euh, euh, Seet Daabo génn na wax ni mu si participé tey Alaaji Kaañi génn na wax ni si participé tey am Koli euh, euh, euh, génn na wax ni mu si participé te nga am ñoom Edward Singate ak ñoom Sana Sabally even though am na tuuti discrepancy muy ay yenn yoo xam ne xaw naa mi ñàkk a méngoo ci li gaa yi wax fuñ d'accordut waaye lu si bari ñoom ñëpp liñ nettali lu am la te it emuñ foofu ñu pare dem sullil ñu ay wax yax wan ñu ko kon loolu lu xel mun a gom la ku ñu waxoon ne lii xew na ci suñ réew liñ doon dégg yépp nguur gi di ko laam-laamee nguur Yaya Jammeh munuñ ko góom ñuy dégg rek ay rumos ay rumos keroog biñ demee ba sulli yax yooyu ngeen xam ne mooy loolu fan la famille yi toll nag mu fa ndax bi président Barrow jëlee nguur gi ñëw am na eh, dig bu bari boo xam ne diggoon na ko Gambien si rawatina si transitional justice project mooy ne dina ñëw gindiwaat Gambia delloo Gambia boppam doomi Gambia niñ leen notee woon ñu delloo leen ko yaakaar biñ amoon ci nguur yépp dina dellu si waat hopes were high the stakes were high hope boobu nag ak stakes yooyu ci li ma gis bànjul man dalut ma suma xel li ma gis bànjul neexut ma te lu ma neexut dinaa ko nettali su ko defee askan bi door di gis lan mooy transitional justice project si président Barrow diggoon Gambian si ne su ñëwee dina taxawal ay commissions of inquiry mu jiite si di jaane commission ñëpp rafetlu ko béggee ko ne président aadama Barrow taxawal na jaane commission pour gestu kisi kisi xaalis yi nga xam ne wax nañ ne réewi Gambie dañ ko moom former président Yahya Jammeh jël ko aki moo ko boppam muy xaalis yeeg alal ji bépp façon yi alal asset ak mu munti nekk du suuf du kër du auto du business lepp lo xamne yaa jamme jël nako note ci Gambien si ñom dinañ gestu lolu ñu def ko nak féré ci lu upp juroom fukki millions yi dalasi pour gestu jaane commission bobu nonu am ñu paré joxe seeni recommendation jël ko jox ko président bi ñu jël kayit gi tek ko ci seen table lu yàgga yàgga yàgga bala ñu genn si issue li ñuy wax white paper ñom nguur gi jël nak ñi leen neex ci jaane commission report bobu nonu ñu jël leen am génne leen wala tek ab am am bugal ci seeni kaw ñu seet ñu leen ci neex ñu mel ni ñoom Mambouré Ndiaye ak ñu mel ni Mamadou Sa euh, déggal ma ne Mamadou Sabali ñoom Mambouré Ndiaye ak ñoom Alaaji Cissé ak ñeneen ak ñeneen bàyyi leen ñu continuer di liggéey ma ne lii lu ma fàttali man mooy ne suñu réew yi ni ma koy waxee waxtu bu nekk Gambia nekk na réew moo xam ne ñuy def allégeatli lu bon ñi nga xam ne ñooy toroxal doomi aadama ñi nga xam ne ñooy not nit ñi ci réew mi wala ñiy def lu bon rek ñaareel dañu leen a jël di leen tàccul ñooñu la ñuy jël di leen célébrer ñooñu la ñuy géewal ñooñu la ñuy jël di leen gën a jox ay place ñu continuer di def liggéey yi te lii lu ñu war a seetaat la fee ñu ngi ko continuer di def suñu réew dinañ saxaar rek waaye duñ tàkka su ma ne lu tax Gambia du dem génne lu tax ma wax ko waaye dinaa continuer di ko laajte ndax yii ñu muy def yu nu mel mooy tax ba réew mi du dem kanam li tax ma wax lii mooy jaane commission report baa ngi noonu issue nañ ko ñi nga xam ne wax nañ ci seen tur comme ñu mel ni ñi ma tudd nii nguur gi jël leen continuer leen jox leen ñu continuer di liggéey ci biir réew mi ba tey jii ki nga xam ne moo doon jàppale Yaya Jammeh di ko enable ba lim doon def ma mun koo def yëpp ñu mel ni Mamboure Ndiaye ñoo amee sunu keesi réew mi ba tey moom moo amee minister of finance ministry of finance ba tey jii ñu nekk ma ne loolu jógee ci góor gi April Tenen 11 outright wax na toogal na boppam si TRRC ba tey wax li nga xam ne moom loolu la def foofu noonu report si wane ko loolu jógee ci président Adama Barrow ñëw amul dara lum def jël kooku noonu set-up anti-crime unit jël góor gi mbubb jox ko ko góor gi kat formé ay nit continuer di toroxal suñu doomi Gambien nii suñu réewi Gambia jàpp ñu ñu di leen toroxal bépp si mujjee mooy kees yi ñoom Ibrahima Sane mi nga xam ne kat jël nañ ne daf ko jël kik ko ci ay ciram bëggaañ xale bu góor bi. am Human Rights Commission bi def seen findings ak ñeneen yi amaan na sax mujjee ne génnee góor gi dëkka yu sérieux yi laa wax de nguur yu sérieux yi place yu sérieux yi suñ gisee dara muy xew ci réew képp a koo xam ne dañ def inquiries suñ commencé inquiry boobu rek suñ ci tuddee sa tur ñaareel dañ lay jël yow ñu ne laa demal nga toog ida dañ lay putoon administrative leave wala dañ laa putoon leave di la fay waaye di nga dem nga toog nga xaar bañ decide sa fiit su fekkee ne you are vindicated ñu délo ci la jox la sa place su ne kat yow loi dafa daanu sa kaw ñu génné la fofu noonu waye gor gi mbub kat bay nañ ko rek muy def sa gom di def lu ko neex di toroxal doomi gambien si it was too late balañ ko génné ndax lolu lu yagg waroon a la ndax gambien si yàgg nañoo joytu lolu ci anti crime ak li ñuy def ndax anti crime unit la ñoo wax ne dekk bi wut ko dede dekk bi soxla nañ lolu waye jël ñoo xam ñoo def naka su dul noonu du tuuxiduuna bu mel noonu ñu jël leen jox leen ñu jiite ay place ci réew mi comme ni ma ko waxee rek ñiy def lu bon ñun suñ dëkk ñooñ la ñuy tàccul ñooñ la ñuy feddil géew bàyyi leen ñu def lu leen neex te loolu nekkut lu war man li ma gis Banjul neexut ma te li ma naqari naa ko wax askan bi ba tey rekk bu yàggut lañ fi gis docteur Bamba banja ak li nga xam ne alleged corruption bi ci fisheries department bi these are very real lii du loo xam ne dama ko make up these are things with evidences bi nga xamee ne journalist Moustapha Key Darboe interrogate na ko interview na ko playal ko ay evidences of bu mu toogee ci këram ak Chinese yi ñu ko offer hundred thousand dollars ngir corruption ñu ba tey ñu ngee wine and dine with the government seen palaas yi ñoo ko jël continuer di moom ma ne ñun suñu réew ñuy def lu bon wala ñi yaakaar ne ñooy def lu bon dañ leen a jël di leen tàccul di leen continuer di leen dooleel lii nag si every sector la nekk every sector ñi nga xam ne ñooy wax dëgga ñi nga xam ne ñoo jub ñooñu la ñoo téye ñu bon kon ma dellu si waat ci transitional justice project yi ma leen doon wax muy tiara muy jaane commission bi ñu na déeta waaye ci ni si yaakaar tase noonu boobu foofu la am waxatuñ ko constitutional review commission ñu ne Gambia dañ soxla constitution bu ees Yahya Jammeh ak nguuram biñ ñëwee ci ñaar fukki at yiñ fi toog ak ñaar seen first two years yi dañ ko def décret military décret suñ constitution réew mi bëggi réew mi nga xam ne doomi réew mi ñoo ko jël muy 1970 eh, eh, constitution bi dañ ko taxañ tegee ko boor ne ñoom duñ gouverner loolu ñu def ay military decrees commencé di gouverner réew mi with this military decrees ñaari at dem referendum, 96 Gambian si sànni karta ci referendum bi ñu am constitution bu es. constitution bi ñu jël ko tampa ko caxat caxatee ko caxat caxatee ko ba lu ëpp juróom fukki yoon constitution duñ koy def noonu du loo xam ne da ngaa jël rek time bu mu la neexee rek nga génnee time bu mu la neexee rek nga génnee li si nekk yu bari daanaka ñu génnee ko benim leen arrangé ñu ne nañ leen toog ñu defaraat constitution boobu ci jamono jooju ñu fàttali askan bi de dama koy wax saay bu nekk fàtte xeju fi biñ ne nañ def constitution bu ees ku mel ni honorable xalifa Sall toog na mu ne leen ne balaa ñoo def constitution bu ees nañ leen seet constitution bu fi nekk ñu seet li ci nekk te bëgguñ ko gannaaw dañ ne dañoo def réforme ñu wécci leen di leen seppi benn benn suñ amee di political will ak determination bi ak zeal bi jàll dina def dinañ mun a génne loolu ñu seppi bagage yi fa nekk benn benn loo xam ne soxlawuñ ko fa within one year suñu yàlla dimbalee dinañ mun a génne loolu noonu te du koos réew mi dërëm nguur gi ne déedéet former minister of justice Batambe du jiite process bi ñu ne nañ leen establish a constitutional review commission ñu jël gambien yu xarañ te lu tax ma ne ñu xarañ ki nga xam ne moo ko jiite woon di justice Thierno Diallo QC dama ko interview bi mu ñëwee Seattle fii mu wax ma jaar jaaram ak liggéey yi nga xam ne def na ko not only in Gambia but ci Gambia ak ci àdduna liggéey yu rafet ñu jël Gambien su sell ñoom commissioner ji ji Sow ak ñeneen ñi ci nekk ci commission bi yépp gambien yu sell la ñu jox leen liggéey bi ne leen jëm leen ngeen laaj gambien si lan ngeen bugga pour mu nekk ci seen constitution a very consultative process a very involving process li tax ma ko wax mooy ndax ñëw nañ bés yaatul fii ma interact ak ñoom interrogate leen laaj leen i questions interview leen ñun suñ bopp ñu am di opportunité pour yokk suñu xalaat si niñ foog ne noonu la suñu réew mi war a doxee niñ foog ne moo war a dem ci biir Gambia wala suñ constitution doog luñ ci bugga ñooñu wóor ñeneenti koñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu woy ñeneen wóor ñeneenti réew mi penku xarpu ngopp wala ngalandu Gambien yi wax leen seeni xalaat ne lii lañ bugga ci constitution bi waay waay waay waay waay Gambia you can never have a perfect system munoon nañoo jël constitution boobu ñu compromise ci agrisi waaye nguur gi ñoom ñi nga xam ne ñoo ko jël dafa mel ni rek yow mi uh, ëmb sa doom juróom-ñeenti weer teete ko teete ko teete ko daj façon ngi coono bu nekk ci doom jooju doom ji juddu nga jël ko faagaagal ko jël paaka teg si baatam bi rendi ko fa seet loolu la président aadama baro ak nguuram def Gambien si si constitutional review commission bi very disappointing yépp ngir am line biñ fa def wala bi ñu fa def bu wax ne président Adama Barrow am su ñaari taamam yi jeexee mënut a toogaat ñetteeli taam mënut a toogaat ñetteeli taam lii nag bi mu xewee ba tey def naa si a couple of shows li ma si doon bëgg a comment yëpp commentuma ko woon waaye dañ ne wa makkaru rek yàlla daf ne wa makkaru wa makkarallaa wallaahul xayrul maakirin ñu plan rek yàlla plan te yàlla is the best of planners God is the best of planners képp a kuy plan képp kuy fexe nañ fexe rek yàlla fexe te képp kuy fexe yàlla la pexe gën sa pexe mi fexe yàlla fexe nañ fexe yàlla fexe te képp a kuy fexe yàlla la gën a am am am am gën a mun a fexe this is the reality this is the situation on the ground constitutional boobu noonu lañ noonu la deeyee noonu la deeyee kon askan bi loolu paase ñu fere si téeméer ak fukki million ak juróom benn ñu dese lu ëpp fukki million daanaka téeméer ak juróom benn fukki ak ñaar fukki million ak juróom benn hundred and twenty six million dollars ak lu tegal moom lañ fere si constitutional review commission process bii nii consultation process bi nii mu pare ñu jël loolu rek ne nañ ko faagaagal taxañ ko rek sànni ko this is not okay ba tey si transitional justice project bi national human rights commission bi ñoo ko set up jël ba tey it gambien yu sell la def leen fa ñoom Emmanuel Diouf ñoom Imam Babali ñoom Jundu Dramé These are Gambians with reputable characters. National Assembly bi confirm ko bi ko nguur gi indee ñu bari rafetlu ko ñu ñëw pour xeexal Gambians si seen yelleef pour alaaw Gambians si ñu ngee liggéey day and night issues yu bari recommendations yu bari yi ñoo jox nguur gi yu ci bari nguur gi nekkul di ko jëfee ñu si bari nekkuñ ko this is one of the issues very disappointing Mane, nguur gi dañ nekk di jur ay doom rek ñu melon ni ñu ne dañ yara dar dañ yara dar ñu commencé nak di am ay doom ñun suñ bop ñu jël xalé di rey doom buñ am rek rendi doom buñ am rendi suñ setobee jaane commission rey ko ngir recommendation suñ dox defuñ ko te ñu dégg président bi ay yoon ci interviews moom ci boppam mu ne Jammeh commission dina leen empower suñ indee recommendation dina jël seen recommendation ci for the most part in its entirety lépp luñ ko digal ne nañ ko def dinañ ko def ndax commission bi dañ dem gestu biñ gestoo ba xam naka la ba tey jii Jammeh commission xamuñ am fan la euh, euh, euh, bagage yi nga xam ne moom lañ wax ne moom lañ jëlee ci Yaya Jammeh ñu ngee jaay ñu ngee jël di lifin ba tey jii there is no transparency in this Janneh commission issue no transparency xamuñ fu bakaas yi toll some of the stuff are missing loo bañ bañ naar bi jox ko xoromam si am um, am um, um, nangul ko xeesaayam waa APRC waxtu wu nekk ñu ngee jooy loolu ne jël nañ seeni moto yi nangu nañ seen asset si ba tey jii waxuñ leen asset yooyu fan lañ nekk yii jël nañ penturaat leen yii jël nañ defaraat leen yii jël nañ jaay leen yii def nañ ko differently they cannot even tell where those vehicles are due process lañ war a toppa loolu taxutoon ñu ne nañ set ay jaane commission loolu taxutoon ñu ne nañ set lifin programme yi yëpp moo tax nag ma ne leen ngeen seetaan ci kanam nettali ci gémmiñi boroomam ngeen dégg li jabari wax awanjaay ngeen dégga li jabari ñoom Jibril Sey wax these families are still crying they are all full of tears seen amin yaakaar dafa tas seen yaakaar dafa tas te ni ma leen ko waxee amuñ hope ci TRRC bi rawatina nag biñ gisee yeneen commission ci niñ doxee bot en wut waaye xam lu bopp antan families yooyu amuñ yaakaar si TRRC bi if the Janneh Commission report wasn't respected if the Human Rights Commission send recommendations to you but are not respected. If the constitution was just thrown in the trash like that, why must Gambians have faith in the TRRC? Victims already, you get deal with this. the only thing for the most part that came out of it ñi nga xam ne feebaroon nañ ci torox nañ ci for a while those people at least have been given am um, treatment ndax barki démb boo njaay rek la suma gars yi barki démb ba si londi bi la suma gars yi dem foofu ca TRRC bi te see fa kenn si victime si nga of April 10 and 11 am nga xam ne tànkam yi mu ngi nekkal la fa tay yëpp depuis April 10 2000 ba tey jii mu ngi toog ndeysaan si puus puus laa toog wala mu téye ay beeke jamono jii de ku jot na see am tànkam yi ñu defar ko. tànkam yi ñu defar ko yusatul bekke bi santa yàlla si loolu Do bañ bañ naar bi seede ko xeesaayam Those things come out of the TRRC. But the general recommendation as far as justice to be served mooy loolu ndax ñi nga xam ne ñoo aid abet lii ñi nga xam ne participate ci eh, eh, brutalizing Gambians all these years ñu bari ci ñoom are serving in the military are serving in other I mean um um um security agencies kon november 11 bes la hamne xamne ni gambien ni waruñ ko fatali yena mako gëna xam deglu ngeen ko sétan ngeen ko ci TRRC bi kon lolu lo xamne la lu am solo la gambia am suko defé rek ñu continuer am di ñaanal aji jitu yi ñooñu nga xamne ñoo ci november 11 ñu ngi leen a ñaanal Yalla pour am yalla fugg seeni Nakayo naka yok seeni leer da yereem leen xare leen ajana jéggal leen seeni bakar and we hope that seen family members yi dinañ leen bàyyi xel di leen gindandeku di leen toppatoo su ngeen dégloo gaay si kanam ni ma ko waxee ngeen seetaan leen déglu leen ngeen déggali gaay di wax am not saying when they went di the si ndax balaa boobu ñu bari xamuñ woon seen story den nañ TRRC wax nañ seen story àdduna yëpp génn leen it was very embarrassing until this day these families don't have any help some of these women when we call them ñu ngi ci marché yi di jaay ñu ngi ci place yi nañ ok nañ leen may tuuti dañoo raba raba ñu they are struggling very hard after their husbands were brutalized, after their family members were brutalized for years. This is sad, and those people should be compensated somewhat, somehow. I mean, for what happened, their family members are gone and gone for good, and those people can never be brought back. But the hope that they had, the justice will be served. Yes, the commission hasn't finished its work yet. Dinañ wax commission bi jeexalagut liggéeyam there is no hope based on liñ jot a gis te ñuy ñaax nguur gi pour ñu wecci doxalin soppi doxalin man lii laa gis Banjul ci affaire yi novembre 11 maa ngi leen a bëggee bu baax a baax a baax mbokk yi jërë ngeen jëf ñu delluwaat rek ci number two topic boo xam ne dinaa ko waxtaanee muy affaire yi Covid 19 askani Gambia dañ war a bàyyi suñ xel coronavirus is real and it te mu fi ba tey demut fen yàlla def na nag alhamdulillah ndiki barki démba gis nañ président elect Joe Biden make an announcement ak ñu ngi topp ci news yëpp ne am na potential vaccine boo xam ne génn na defar nañ up to dinañ defar up to 30 million pieces of this vaccine that can be used pour ñu jàppale ko pour ñàkku pour ñiñ yaakaar ni am nañ ko war nga seet Amérique rek nga xam ne am na lu ëpp ñetti téeméeri million ngi nit àdduna bi rek lu ci nekk si nit amin ay am trillions of people nga war a toog noonu ñu ne thirty million doses lañ defar te lii defar nañ ko ninety percent accuracy lañ am si vaccine bi waaye vaccine boobu 90 percent accuracy boobu tamit sax guñ ci dafa war a dem through the FDA Food and Drug Administration dafa war a am ay yoon yoo xam ne fa la ñoo jaar ñu kisi kisi ko gestu ko ba xam ndax lii dina pare is gonna take a couple of months before it will be accessible to the average Americans with critical condition coronavirus mu ngi fi ba tey Gambien si ay weer ci gannaaw def naa ci ay programme yu dul jeex. ci tobaski bi si korite bi ak everywhere else di gindi Gambien si di fàttali Gambien si liggéey bu bari lañ ci nekk di def fii ci Seattle gi ñu nekk nii in the past eight to nine months depuis maaj ba tey Gambian talents Gambien si nekk fii jàppale nañ leen with nothing less than up to eighty to ninety thousand dollars boo xam ne fere nañ ko ci jàppale Gambien si fi nekk ci dunda. ci fay ay bills ci fay ay medical bills ak organize, ay programme yo xam pur pour gindi askan bi la pour jangal askan bi la pour dolel askan bi la na ñi nga xam they have been affected by coronavirus pandemic bi kon ñu ngi def kenta lay kàttan waxtu bu nekk ñu joxe masque liñ joxe si masque wala mun na ti junne masque ci liñ dox gambien si nekk fi ay hand sanitizers ak yeneen wipes ak yeneen cleaning supplies yoo xam ne amin ak personal protective equipment yoo xam ne dinañu dimbale réewi Gambia jamono jiñ toll nii yéen ñi fa nekk ñëpp dooree ko ci kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa ñi nekk ci boppi nguur gi yéen ñëpp dem ngeen ba fàtte wala gomloo seen bopp ne coronavirus is gone corona jeex na ma fàttali leen fàttali askan bi ne coronavirus mu ngi fi demut fenn Amérique giñ nekk nii juróom benni fan yu passé nii bor bu set li ciy am corona rombana na hundred thousand people every single day and the past six days we have over six hundred thousand cases of coronavirus fii ci biir Amérique pour fàttali leen dafa triple state yu bari ñu ngi tëj di dem back to lockdown dégg ngeen ay Germany dégg ngeen ay am am am am am Belgium ak place yu bari ñu ngee delluwaat back to lockdown Gambia yéen jeexal ngeen coronavirus man li ma gis Banjul neexut ma te lu ma naqari dinaa ko wax fàttali askan bi wa zikri innal zikra tanfaal muslimun dinaa fàttali suma bopp fàttali leen ni ko yàlla waxee woon sallallahu alayhi wa sallam pour yokk ko góom suñ choice la nak ñu gëm ko suñ mag ñi yen laay gën a waxal su ndaw yi xamut seen soxla yéen ngeen xam seen soxla ñoom ndaw yi dëgër nañ mun nañoo dox mun nañoo daw mun nañoo dem ay place seen soldaari yaram yaa ngi dëgër ci jamono ji nekk mun nañoo am corona set ko rek Gambia fataay yi koo kool Gambia dama soj dama soj dama soj dama soj suma office when I talk to them I told them I am very disappointed with them suma wa office I am very disappointed with them wax naa leen kon ndaw yi fa nekk di liggéey ñoom ñëpp I told them ne leen dinañ lor seen bopp wala ñu lor seen extended family when I talk to them every week we have our managers meeting on Tuesdays and we have a general meeting staff meeting on Wednesdays including today and suma ma amee meeting dama leen dee fàttali lii they just laugh they just laugh it off wax naa leen ko dooree ko si Fatou Samba ñoom Aida ñoom ñi fa nekk yëpp I told them how disappointed I am I don't have to yell or scream for them to understand what I am saying that I mean it very well I am very disappointed with them bépp matuwaay bu ma mun def naa ko ay mask gloves hand sanitizers yii yëpp jëndal naa leen ko foofu bleach pour ñuy toppatoo foofu am nañ fa ndox pour di raxas seen loxo yi jox leen ay boom pole yéen ñiy seetaan ay boom pole muy pole yu gudday yi nii nga xam ne dinañ fa def seen microphone si pour suñoo interview nit ñu sori la buñ la jege ñi criticize ñu bari di ñu di ñu lëfin yes I take the responsibility it's our platform waaye man I can only give them this equipment and ask them to do so te wax naa leen ne dinaa leen ko wax. ay satu Jallow su ma waxee mu ne ma message Diouf yow yaa ngi gom ne corona am na ba tey and I would tell her yes corona still waaye ndaw yooyu nekk ci dëkk bi it starts with the government it starts with the religious leaders back in um, uh, uh, July August September dëkk bi tàngoon na bañ gis mais Rohey Malick Lowe génn si di jooy di appeal to the minister of um, health pour mu comme def a partial lockdown of the greater Banjul area because of liñ foogoon Rohey Malick Lowe ma fàttali la ne la corona mu ngi fi ba tey yéen ñi nekk ci boppi nguur gi yéen meeyoo yi ma fàttali leen ne corona mu fi political party leader yi ma fàttali leen ne corona mu fi gis nañ leen yéen ñëpp ngeen nekk di génn di def seeni matuwaay ngeen respectoon yëf yi jamono jiñ toll nii yéen ñëpp commencé waat ngeen politics ñaami na bàyyi élection si dinañ ci ñëw balaa loolu gis nañ UDP seen laying of the foundation stone gis nañ président Barrow moom si boppam moo njëkk a génn dem euh, euh, euh, ne déclare na dëkk bi open bi moo dem di am commission Hakalang road bi ci ñuumi mu ne déclare na political season bi open teguñ si ñaari fan mayor Talib suuda ne mu ngee launch am am freezer bi nga xam ne ibbil na ko jigéeni Serekunda market yi mu launch ñaari project that week moom meeyoo Talib Bensouda def ko ràlle bu mag nit ñu ñëw teew foofu noonu Latrikunda ak am uh, uh, uh, marché Serekunda this is not something I made up we covered these events we covered these events it is sad and unfortunate President Barrow as of this weekend mu nga jumaat badibu farafeñe ak sabax ne dafa dem lonc ay yoon foofu it is sad and unfortunate it is sad and unfortunate ne foofu lañ toll gëmuñ corona ni ñaa ngee dee off of it jamono jiñ toll nii fii si America jamono jiñ toll nii fii si America is very sad comme ni ma ko waxee health care workers yi ñu ne mënatuñ koo handul there's a surge in the rise in cases of coronavirus and this must be believed fii bi balaa vaccine bi di pare of course it's rather unfortunate African countries yi ak yeneen dëkk yi ci àdduna bi try nañ ne am nañ amin vaccine bi gis nañ di covid am am package bi nga xam ne ka defaroon nañ ko ak yeneen ak yeneen ñu nasaxal ko yooyu yëpp demuñ anywhere but of course America fii jot nañoo annonce ne am nañ vaccine ñu ngi defar 30 millions 90 percent accuracy lañ wax ne moom la am ah, boo xam ne gëm nañ ne kat its efficacy level mooy ne it's is very effective 90 percent yaakaar lañ si am ne dina faj corona wala boog dina ko prevent kon loolu su fekkee ne am na te ñu ne dina jël few months balaa moo ex pare loolu du nekk loo xam ne dina gaaw a réew yi réewi Gambie ak yeneen place yi képp nag ku caaxaanee corona bem rey la mooy loolu. nguur gi def nañ seeni matuwaay steps yi jël yu si bëri criticize naa ko ci bi nga xamee ne ñu ngi quarantine nit ñi efforts yi nga xam ne ñu ngi ko doon def xaalis bi ñëw ak ni ñu wax ne noonu lañ koo defee dégg nañ président bi si ay kàddoom xaalis yi ñu am yëpp yenn yi de a am manis yoo xam ne dañ ñu ko may waaye yu si bari tamit luñ leb la ma ne bépp doomi Gambian na nga xam ne yaa ngi am bor si sa ndodd boo xam ne yow say set sëtaar sax ñooy fay bor yooyu noonu nguur gi bor yi ñoo jël ci suñ tur rawatina ci jamono korona gi bor yuñ jël ne dañ ko jël pour jàppale ko Gambien si jël xaalis bu bari lu mut 800 million ne dañ ko dugal ci jox nit ñi dund dund googu ba tey gis ngeen ne good number of places in the country complain nañ ne jotuñ ci dund googu noonu muy maalo meeg sukkur beeg yooyu. am am nañu si jot ñu ci dimbale yes the effect of coronavirus will affect adduna bi for a long time am na si ñoo xam ne seen life si laa yàqoo for good am na si ñoom ñoo xam ne they will never come back ñi si ñàkk seeni bakken they will never come back ñi si doon def business wala am yeneen things di ko di si dundal seen njaboot those things are gone Gambians are taking this lightly we need to be able to take very critical decisions for the long term. It doesn't affect Gambia alone. Even America here, businesses are affected. What makes you think Gambian businesses will not be affected? What makes you think every sector in the country will not be affected? Baker, you get ngay and get gerte yi maa am people that are in my office ñoo xam ne ay béykat lañ jël nañ permission dem pour gas seen gerte yeeg yooyu let's see how it's gonna work les si ndax nguur gi seen bopp am nañ xaalis pour jënd ak gerte yii nii les si ndax yeneen dëkk yi nekk bitim réew am nañ xaalis pour jënd ak gerte yooyu ren jamono dafa dox suy dox ñu dox ànd ak moom coronavirus is real I will hold the government accountable. I will hold the political party leaders accountable. I will hold the religious leaders accountable. ñoom ñi nga xam ne ñooy organize these sessions America, fi, suñ Seattle fi. Juma ji ba tey ñu ngi ibbi ñu ngi julli waaye imaginal jumaa boo xam ne daf doon jël over hundred and something people over hundred and something people 25 percent capacity is what they're allowed to take foo si dem ñu ngi fa line box boxes Party jigeni used to take about 50 something people 18 people rek ñoo faa site jigéen ñi ci jumaaju yu es yiñ samba fi samba fi muy ICOPS parti gor ni 57 people ñofa julé té daf tan jël over 150 people ngeen seet we have to wear a mask fuñ dem we have to wear a mask Is mandatory boutique bo fi dem pour jënda yi ay loi la yo xamné nguur ko ibbiwaat nañ school si def nañ everything while àdduna ñu ngee delluwaat back to lockdown ñun jamono jooju la ñoo jël pour jéem a ibbiwaat suñ palaas yi nit di dem xale yi di dem school ku nekk none of these regulations are being respected in the country by nobody You have to wear a face mask. You have to wash your hand. None of these regulations are observed. America fii doo fi dugga benn boutique rawatina ñun suñ siyaarool fii Chuma Dawale's Momoto mask is very uncomfortable to put on. I have them hanging by my mirror, my dash mirror. su ma duggee lifin wàcca ñu ne maa dugg si boutique su ma demee ba si bunta bi ñu ne ma wees yow masque ma delluwaat suma moto dem jëlee suma masque ñoo def suma biir lii it's for my own protection wala soo ko fàttee most of the stores soo fa demee ñu ngi amee masque yi nga jox def ko sa nga This is what I'm talking about. Citizens, bugga and seen boppa su gur nguur gi buggut nguur munut lena defal yépp citizens in Gambia bugga leen seen boppa understand leen certain things that it is for you pour yéen la defal sol leen use the hand sanitizers use the hand sanitizers to clean your hands soo amutee mask. nañ leen di raxasu bem set te ñu avoid gathering si ndax si gathering si fa lañ koo amee képp ku si am underlying medical condition nag boot enuwut waaye xam na lu boppa antan weda sa eh, am jigéen a ko am góor a ko am xale ko am maga ko am képp ku am underlying medical condition rawatina breathing problems soo amee coronavirus eh, su la yàlla dimbalewut sa bakken si laa des dégg nañ ñaata kilifa ñoo fi des si corona dégg nañ ñaata kilifa ñoo fi des fii xeju fi ay weer si gannaaw lañ wax ngeen a caalit we must change our behaviors we must change our habits we must feeñ ñu ngi continuer di def things niñ foog ne noonu la waree noonu la gën a rafetee as is the norm in Gambia ndax lu gën a rafet rek loolu lañoo ñoo bëgg di def waaw lii nii la gën a rafetee su ma ko defutee xam nga ni ko nit ñi gisee ku am xew ma ne bu la kenn rey ci xewam bu mu am buggal sa boppa su kooku buggutee boppam jamono moo wécceeku on est normal de boromam mais bi am na ñaar ñetti xew yoo xam ne participer nga si wala dina am yeneen xew yooyu participer yow boroom xew bi si boppam aaral sa boppa aar sa njaboot njëkka suñ ko gisee noonu we will not be in denial jamono dafa dox su doxé ñu dox and ak mom su doxé ñu dox and ak mom kon president baro for political reasons tax nga ibi dekk bi ibi yu bari nga political season bi open fim nek ni ñu ngey jot musicians si xale ñu ngey commencer wat ndiran bi jotna flyer am mu ngi am programme that is coming up in the next couple of weeks ñoom ñëpp ñu ngi togg ay programme Sanyang Ami ak ST ñu ngi am programme maa ngi gis ñu bari si ñoom ñu ngi commencé di def ay lined up booking events again these gatherings must be stopped àdduna ñu ngee dem back to lockdown yéen yéen a ngi ibbi yéen di yaatal jumaa yi outright diñ imposé curfew bi tek ay sarta pour jumaay my team went to King Fahad Mosque and a lot of the mosque being interviewed guy outright in their defense Juma Imam Babali is one Juma bo xamne they have done seen lay katan, pour respect sarta yi yenen Juma outright dañ ko wax ñune nañ tej wanaki they said they are not going to close these bathrooms duñ ko tej nit ñi dañoo di dem foofu pour jàppa they are not going to close these bathrooms that's what they said bilaali jumaa ji moo ko wax ci sëriñ naan interview openly government say do this ñu ne duñ ko def ndax loolu rafetut nit ñi dañ war a jàppa ñaata kilifa ñoo fi réer biñ ko defee ci biiri biiri dama génn ma wax ne that was the wrong decision kilifa yi ñu bari am nañ ci corona ci jamono jooju ci dëji biiri biir yi lañ ko amee jël na yàlla yokk leram ñu ci bari am nañ corona ci dëji yaayi Essa Faal lañ ko amee I said these things I said it I did my analysis on it I showed you the crowd bi yëf yi dooree nag ba tey président Barrow one of the first steps he took was am sañ-sañ ne dafa dem Sénégal jël délégation bu mag yobul in Sénégal ne dañoo dem defi discussion world leaders are having discussions every single day where are they having it online and virtually Meeting Shubari. coronavirus is real ma fàttali len gambien si corona is real kilifa dine yi rawatina yeen yi nga xamne yeen nga mak understand len lolu ngeen ar sen bopa ar sen njabot politicians si the same thing ar len sen bopa ar sen njabot nguur gi ar len sen bopa ar domi mi yi ngeen jël on behalf of the Gambian people wéré dañ ñu ko may o dañ ñu ko lebal spend it wisely transparently, honestly, to serve the purpose for which the monies were uh, meant for Nung ngi leen a di fàttali ñi ne corona is here Deka yange go back to lockdown my brother alaji enel jàmme I saw your comments mu ne bro coronavirus is a western sickness Africa we have malaria there is no malaria in the west kon kilifa yiñ wax ne dañ dee of corona yépp naka la fa taajoo boro kilifa yiñ wax ne dañ dee yépp of corona naka la fa taajoo yenn gom-gom yi ñu am moo ñu dee lor with all due respect Mr jamme yenn gom-gom yi nu mel moo ñu dee lor we are in denial on a lot of things we joke about a lot of things nga talk talking about jams make black man fat it's far from the reality nala you are gone that life can never be brought back and kuna ne si contribute si lila de flow, am li trohal. man li gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko Let's understand that coronavirus is real. Like I said, in the past six days in America, every single day we have nothing less than 100,000 cases. New cases of coronavirus. People are dying in the thousands. The hospitals and healthcare system is overwhelmed. They are overwhelmed. coronavirus is real there is no cure or vaccine for it yet yaakaar am na ci benn defar nañ ko ñu ngi koo test it has ninety percent efficacy and accuracy it has to through processes dafa niit pour dem to di FDA ak yeneen mbootaay pour ñu gestu ko kisi kisi ko balañ koo génnee ci marché bi pour wax ne lii kat lu ñu war a mun a tiila waaye comme ni ma ko waxee ñu ne originally thirty million am am doses rek la ñoo defar kon loolu aduna ñu siy jot ñu ndaw la réew mu mel ni gambie moom suñ xel buñ ko yaakaar ne dinañ ci jotagum léegi mbokkay su loolu weesoo ñu continuer rek ci gis wes am ñaamina election si jokkaadu bay election si ak america fi Election si dafa war a jàngal america ku ni donald trump thinking he is untouchable jamono ji as we speak is reminding Gambians a lot of 2016 yes because mu ngee fire fan yi yëpp mu ngee dàqa nit ñi tey tey jii rek a few hours ago rek am na lu ma déglu si news bi dàqaat na rawatina top security people bi lim doon def li Yaya Jammeh doon def dàqa nit ñi wala ñu resign mu indi ñoom sii di njaay indi ñeneen ñi di leen fa boole di leen teg ci loxoom indi ñoom Pa Moussa ak ñeneen ñum fiil ne dinañ ko doon defal liggéey bi ma fàttali leen rek fàttali Donald Trump wa makkaru wa makkarallah wallaahul xayrin maakirin soo fexee yàlla fexe yàlla mooy ki gën ku dàq fexe ñëpp pexe yàlla moo gën pexe ñëpp Donald Trump ñu bari la toroxal Donald Trump ñu bari la toroxal dafa make life hell for a lot of people He was supposedly a divisive president boolewul xol yi tàppe ko mu doon benna mu am rhétorique bu mu jaay ñu bari ñu fi nekkoon dooleel ñu raciste ñu bari àdduna dafa dox te dañ war a dox ànd ak moom yàlla nag bindu doomi aadama pour toroxal ko du teg nit ñi yenn coono yi for years four solid years of Donald Trump was like hell for the most part living in America and àdduna yëpp kot na yu bari ak world leaders yi is his way or the highway lu mu rek mooy nekk lumbugoon mooy nekk fi mu nekk mu ngey dem koot ci jamono ji yalla wan nako nit ñi do leen toroxal and this is a lesson for all politicians to learn from including Gambian politicians dina exhaust all means mu ngey faaya nit ñi gay nangu am sign documents yi pour ñu am a transition team again ma ne li moo def dafa nekk di fàttali Gambians yi mooy bi Yaya Jammeh koolee ndokkale président Adama Barrow these are some of the things yoo xam ne maybe moom koolu ndokkale waaye bi Yaya Jammeh koolee ndokkale président Adama Barrow in mu ne ko ok by Tuesday nañ set up a transition team that Friday mu ne Tuesday nañ set up a transition team Halifa Sallah commencé di jokkoo ñoom am am bala jaxumpa ci saa si gars yi stop that process Donald Trump nanguta sign kay nitami nangu ñoo sign kayit I uh, listen to the news Sigana ni mangi maa ngi dégg Um, uh, wax uh, ne dafa very seriously all the government agencies pour buñ am anything to do with the Biden campaign in fact let them act as if he won the election képp ku am pour Biden anything am nga ci tuuxi duna gi am nga ci coow li mu ngi leen a faaya wool leaders yi ñu ngee call Biden waaye calls yooyu sax jaaru through the normal channel yim dee war a jaar as president elect they were privately private made calls he's making life hell and hard for Joe parewut a give up parewut a joxe nguur gi and that type of person he is dina def everything possible léegi nak ñu ngi nekk fo xam dañ wara change dañ wara change dañ wara a oyof dafa am solo nit ñi do leen toroxal be pare nga expect ñu réel la expect ñu celebrate la expect ñu jappalé la power belongs to the people and all presidents around the world all leaders around the world should know this dama fateli waxi president baro in 2016 2017 rara bim toge ci waxam yu ñaka yim jotta wax mom si bopam mo ne ñetti lessons ñoo lañ am pour jànga bankal sa baaraam président mu ne lesson bi ñaka buñ wara jànga ñi wara ñaka ci li moy former president Yahya Jammeh dafa am lesson bu bari bu mu wara jànga pour xamne power belongs to the people mu ne ñaareel ba keneen ku war a si li xew 2016 election ci mooy moom président Adama Barrow mu ngi maa di ma seetaan I know he listens and he watches and he knows Li ay kàddoom la mu ne moom moo si war a jàngee I wonder ndax jàng na si ndax bari na ni ñoo doxalee mu ngee toppaat tànk ñu yaaya jamme jëloon mu ne mooy number two person ku si war a jànge mu ne ñetteel ba mooy gambian people bi gambian population bi ñoo si war a lan la si gambian population bi di jàngee mooy ne power belongs to them ñoom ñoo moom doole ji aduna bi yépp nag fu nekk power belongs to the people ñi génn si america pour sànni karta 74 million people ñoo votal Biden the victory is clear America biñ commencé sànni karta ba tey this many people mosu ñoo génn pour sànni karta this many people mosu génn pour sànni karta combined close to 150 million people ñoo sànni karta pour both Joe Biden ak Donald Trump combined nit ñi nag doo leen toroxal ba pare expect otherwise yàlla si boppam moo leen jàppale Donald Trump mun continue plan all he can he's calling world leaders spending his time di call leaders yi aduna bi di jéem negotiate ndax dina am ñoom ci intimidate Wow, why he is not going to succeed na exhaust all legal battles all legal means it's not gonna work that's the US election président Donald Trump mu jàngee si American people bi jàngee si the same thing ak Joe Biden comme ni ko président bara waxee woon now election in Gambia is <laughs> very tough and interesting lenn maa ngi koo wax te su ma ko waxee ñu jàppee ko caaxaan two camps dañ war a bàyyi seen xel bu baax a baax two camps te duma ko nubba duma ko sugakoot duma ko waxee neneen duma ko làqa duma odd wax ji ci gambia ñaari camps dañ war a bàyyi seen xel bu baax mooy ñan udp ak di President baro camp President baro lépp lu muy def for the most part ak ay ñoñam UDP lañ teg bët this is a fact yeneen political parties ñu si ci dëkk bi it is just it beats my imagination that every single a couple of months a new party is registered small tiny little bitty Gambia over 15 political parties about 15 political parties let's register fifteen political parties lañ registré ñoo xam ne confirm nañ IEC jox nañ leen ay kayit wax nañ ne mit nañ sarta yëpp pour ñu jox leen pour ñu taxaw a good number of them are just wasting their time Walla book. they are selfish they have some personal hidden agenda Bo xam ne mo nañ moccaat yi nekk ci set up a political party yooyu ñoo fi war a jeex pour mun a am ay diplomatic immunity. yu bari yoo xam So soo political party munga nga koo am wala di def ay corruption related activities njuuj njaaj yi nga xam ne dañ ko daan def fii bindal ay nit kayit fi recommendation def ne lii kii suñ party member la di jox ay nit ñi opportunities pour ñuy tukki yu bari your xam political political parties yi dañ ko daan mun a def wala boog bëgg nga ñu recognize la nga am attention benn ñaar rek su ko defee nga am ku taxaw ñu ñëw foom ak yow coalition jox la benn ñaari ministériel position nga maxate ne muut bàyyi leen ni ñi ngeen a foyantoo gambien si nañ leen ibbi suñ bot yi nañ leen ibbi suñ bot yi dinaa ñëwaat ci li ma wax ci gannaaw ci UDP ak am am président Barrow Camp bi but it's very important for us to know IEC at some point last year earlier this year confirm nañ ne ñu ngi amee lu ëppa thirty applications political party yi nga xam ne dañ bugg a register lu ëppa fanweeri application ana thirty political parties in Gambia this is what we do all the time ñun instead of ñu empower wante instead of ñu seet ñu bokk xalaat ñoo xam ne seen ideas yi are similar ñu come together they form a merger form an alliance from the beginning form a very um, join one of the political parties that they resonate with Why can resonate with Can ku nekk da ngaa def sa mbiri bopp te lii moo tax duñ dem in every sector in Gambia lu kenn duga rek ñëpp duga si lu kenn duga. ñëpp dugga si seet ko every sector we are not creative duñ dee jàppale wante duñ dee dimbale wante duñ dee empower wante gi nga yóbbu réew du yëfi caaxaan yéen ñi taxaw di form ay political party ay hope yéen a koo xalaataat di seetaat bu baax yóbbu réew du caaxaan xam leen ne da ngeen am ay njaboot Le lu ngeen def ci réew mi tey daf leen a lor lor seeni njaboot in the next 10, 15, 20, 30, 40, 50 years 100 years 100 years ye ñi may setan ak man suma boppa kenn du fi nekk in the next 100 years yàlla nak allahu ahlam Why most likely képp ku ma setan si jamono ji in the next 100 years you will not be here I doubt if you even want to be here in the next 100 years I doubt if you want to be here because you will become a liability at the time dara nga dut munal sa ñii di form political party lu nekk nañ leen xam ne liggéey réew you can do it in different ways going to form political parties ku nekk form sa parti boppa bàyyi leen réew mi ngeen a foyantoo bàyyi leen ni ñi ngeen a foyantoo Gambia ku si nekk ñaareel dangaa topp sa hidden hidden agenda sa personal interest yii moo fi war a jeex man li ma gis Banjul neexut ma te xari na ma te lu ma xari dinaa ko wax this is sad and unfortunate is sad and unfortunate. political party here, yëpp pour lan ñi you look at it you look at the trend jamono dafa dox ñu war dox ànd ak leadership party, let them not be in denial let them not be complacent let them give chance to the younger generation. Let them empower the younger generation for them to take over. And Nayutsi, Walandawi, Parepur take over these responsibilities. I've said this over and over. All the political parties, this is past due. It's past due. no problem I am li Donald Trump di def foog ne man rek def suma fa nekkutee du baax these are some of the mentalities we believe in any institution bu setobut boppam rawatina réew with systems yoo xam ne su fa kenn nekkutee liggéey bi dina continuer that is a failed institution that is a failed country bépp njiit bu toog yaakaar li te li ma leen a wax nii su ngeen gisee ñi seetaan depuis si commencement bi dégg ngeen ma wax ko maa ngi def suma kéemtalaay kàttan pour empower ndaw yi te wax naa leen ko ci gannaaw pour empower ndaw yi su ngeen gisee ak Gambian Talents I barely common on air or do a lot of things I empower a lot of the young people I allow them to go and make mistakes they learn from those mistakes ma identify ko ñu identify ko ñu dellu si waat ñu jàng ba yàlla def ñu xarañ ci lu bari lu ma daan def I relegate the responsibilities. I empower other people. I teach them to be independent, to take care of things with or without man, to make decisions. This is what needs to happen. Every decade, then you want to empower the system more, than, more so than individuals. Then ñun suñ political parties yi ñun suñ nguur yi ñun suñ liggéeyukaay that is what happens. We empower individuals more so than the institutions. We don't put systems in place. te suñ defutee loolu rek suñ dëkk bi dinañ saxaar rek waaye duñ tàkk ma waxati ko ci beneen yoon kon politiciens yi bàyyi leen seen xel leen njëriñ askan bi for the most part xam leen ne loi yi ngeen a teg sarta yi ngeen a teg kaddu yi ngeen a génnee seen gémmiñ ak li ngeen a def dafa lor askan bi forever tey you may think that you have the upper hand Elek xamuloo naka la baatin bi di tournee around ana waa PPP laaj leen they were the ones in power at some point ana waa APRC they were the years ago until four five years ago kon is very important pour ñu xàmmee ràññeel lii ma dellu si waat ci li ma waxoon pour dépen ko baax ko UDP ak président Barrow ñaamina na si was in between UDP and président Barrow GDC ñoo fa taxawal candidate depuis 2016 election when I was analyzing the results I said this ma ne Gambia tribal politics moo fa nekk di dox ci yu bari nga seet ko fact fact boot en wut xam na lu boppa antan suñ seetee élections yi te fooñi gi ak all these dollar settlements they voted for Yaya Jammeh this is a fact it's not something I made up te ba tey that is the trend they are APRC strongholds most of the Mandinka settlements if not all of them voted for UDP fact fact, for the longest, this has been the trend. Fuller settlements eh, have been voting for Ahmadba, Bimfaneke. This is a fact. Mom personally ñoom Demba ñu bari place yi you yi neka you pôle yi nekk yu bari moom now Mama Kande came and that flip a lot of the places Mama Kande start gaining started gaining momentum. This is a fact. Little Chahan, it is a fact. Should this change? Yes. Should people vote based on a tribe? No. nit ñi dañ based on policies based on programs based on ham ham. lu leen politicien bi tegal ngeen seet seen dunda yéen li ngeen si soxla ay yoon yu baax ngeen soxla courant ngeen soxla ndox ngeen soxla clean drinking water ngeen soxla da ngeen soxla jàngukaay yu baax da ngeen soxla pour ñu indi leen ay lopitaan yu baax koo xam ne dina mun a xalaat pour boole askan bi ñu nekk benn rather than di tribal sentiments rhetorics yi nga xam ne ñu ngi ko puul all the time dañ soxla njiit yoo xam ne dinañ xalaat suñ waree jël bor ban façon ngi bor lañoo jël naka laa loree askan bi wala naka laa njëriñee askan bi suñ gisee bor te ñu mun koo toon into a grant wala ñu mun koo toon into amin fond boo xam ne dañ ñu ko may ndax dinañ dem jëlal ñu bor boo xam ne dañ cee fay fay ten percent twenty percent thirty percent interest suñ waroon a dem signé deal ñu ne dëkk bi am nañ diw diw googu noonu balaa ñoo dem yàkkamti di ko jox compagnie ndax dinañ jël loolu jox ko compagnie boo xam ne dinañ jëriñ askan bi ñu jël nguur goo xam ne suñ toogee dinañ empower doomi réew mi ngeen seet suñ dëkk bi every industry is almost dominated by the foreigners ñu seet si yii wax naa leen ko ci beginning bi yenn gestu yi nekk di def we have just we are working on a documentary si jamono ji naka la sénégal nekkee di lekk gambia dëkk bu mel ni farafeñe suma dëkk So fa demee is fact ne sefa bi moo fa doole Gambia dan dalas bi a lot of jaaykat yi nekk foofu soo leen joxee dalasi des prifa am um, duñ la wax ne duñ ko jël but des prifa de sefa Some of them outright will tell you they wouldn't. Watch out for this piece coming soon on the GTTV. We've done all of this. Nuge work on it is being edited. Senegambia bridge and all of these things. Why ma dellu si election GDC versus NPP. President Barrow is trying to prove a point wax na leen ko ci gannaaw ne lépp def moom ak ñoñam UDP lañ teg bët UDP on the other hand ñu ngi def everything possible pour discredit President Barrow and you people are doing it in a very nasty way in a very nasty way fàtte xeju fi fàtte xeju fi four years ago Barrow was your Barrow loolu duñ ko mun a tegee boor mukk duñ ko mos a fàtte four years ago Barrow is our Barrow four years ago lu Barrow def noonu la I remember bi ñoom kilo Ace di génn ne dafa doy amul nu ngeen leen caxat caxatee wut I remember bi ñoom Aliou ba di génn ne Occupy Westfield amul nu ngeen leen caxat caxatee wut this is just the fact this is just the fact Amunugin Defene would on every single policy that President Adama Barrow had in place and all the things that he was doing. That he was doing. This is a fact. We've said it. suma maas gi suñ waxaan ñu ne jawol la kumóolem da ngeen bon da ngeen iñaan da ngeen héet baro in fact ñu mel ni Pa Modou Bojang toog na ci plateforme am bi ay yoon label ma as a tribaliste as ak ñeneen ñu bari waa UDP every single time when I made some comments back then fàtte xeju fi ñu taxawal ma tëggal ma ay bersi di ma saaga yu bari duma ko daan déglu dañ maa seen screenshot si wala am ku ko record seen ma ko ma déglu ci tuuti liñ ma seen I don't have time for that ñu a ma ay nataal yuñ jël tuusnal ma solal ma cheveux solal ma ay wig yu baax tuusnal suma nataal jël suma benn picture rek make up ma defal ma all of these things they did those things to me they still do because we have actually criticized some of the policies When they nga xam ne ñu ngi ko doon def ci jamono jooju képp ku waxoon baro dara ngeen ne He was the Moses that saved us from Pharaoh Li du ay kaddu yuma wax li ñoo wax President Barrow where were you President Barrow li nga digoon Gambian ci 3 years ak all the things he said these are things that were said by UDP Amon ngeen yaakar ci President Barrow indil ngeen ñu President Barrow Yenen political parties yi a lot of you you did what you have to do played your internal politics te moo tax loolu la olof njaay di wax ne ku yar sa kuy balaa daan kenn daam la ah? ngeen play seen internal politics baro si génn boppam génn na wax yéen uh, waa UDP ñu si bari génn ngeen wax explain naka la baro defee di wiin seen primaries yi bi ñoom boo jaaju ak ñeneen ñi aaji daabo ak ñeneen ñi buggee woon pour nekk seen presidential candidate bi docteur Aïssatou Touré buggee pour nekk ko di effort si ngeen make pour downplay ba make sure ne Barrow win na xam ngeen ko yeneen political parties yi des yëpp ndaxee mbow Gambien si mbaamal Gambien si moo tax ñoom ñëpp de paid the price for what they ma ne yàlla gëmu nelaw te du jaawale ñu mel ni ñoom Mai Fatty ñu mel ni ñoom OJ Jallow Amat Bah Henry Gomez ñoom jànko all of these people ñu toog ci seen primary yi keroog ñu and koo Kairaba we were watching this thing ku nekk si ñoom egg si stage bi taxaw wax convince Gambians yi joxe very powerful speeches su ngeen ma sànnilee karta dinaa leen defal lii dinaa defal lii dinaa defal ku nekk ngi indi seventy delegates gomloo Gambians yi ne they were genuine in what they were saying on that stage ne na leen Gambians fekk ñoom ñëpp play nañ seen politics loolu yëpp dañ doon maslaxa rek formalité ñoom ñëpp wax nañ ne na Gambia jël président baro naka seen seen délégué ci seventy délégué ci nañ sànnil président nañ sànnil baro mu pare tax baro am three hundred and seventy something votes versus Khalifa seventy something votes yi mu am ñoom ñëpp seen candidate yi sànnil président baro kat la da ngeen mbaamaloon askani Gambia ku xamul ku nekk ku toog seetaan foofu yéen ñu joxe speech foofu yépp su fekkoon ne based on seen manifeste yi la based on li ngeen wax askan bi speech yi baro bi was the poorest speech foofu his speech was the poorest speech his delivery was the worst his comportment his demeanor and everything he was less presidential this is no disrespect to any of you he was less presidential than any of you The primaries yoyu President Barrow was less presidential than any of you. ngeen bamal Gambien ci pour ñu sànnil ko karta fii fàtte xejut fi history must be told and must be told the right way duñ ci am luñ ci suga kóot duñ ci am luñ ci suga kóot te liñ leena wax ni yépp fax la ma si challenge ñu génneel la vidéo si ni ko suñ papa seet Camara waxee weddiwul la tudd weddiwul these videos are there I'm not making up anything nothing whatsoever you thought Barrow was the guy Barrow was the man he was the cool one léegi ñëw na nag toog ñu bari si yéen jël na leen jox place you were there yàquwante naag ñu bari si yéen The only person surviving so far is Dr. Isa Tuture. Only people is Dr. Isa Tuture and Hamad Ba. faga gal faga gal na leen dégg nañ Ba lim wax démba Bom bi bim génnee ne ministre bu fi nekk te parewuloo pour campagnal président Barrow na nga pare pour dem just risk a chance of losing your job ana separation of power see, ana liñ doon joytu ci Yaya Jammeh te luy lañ doon wax dañoo use state resources yi def lu leen neex power of incumbency pour fàttali leen lan moo xew na judice si ñoo fa amoon National Assembly member mu nekk am an official mission dem tukki Maroc yàlla moomee fa bakkenam ñu wara def by election Kër ga wot ci jokadu ki kan kansilo bi fofu yalla def ñu appoint ko def ko alkalo dëkk bi ci jamono ji ba tax ñu soxla pour def by election GDC sampa fa seen ndenda pour jongante xëccoo ak president Adama Barrow MP ñu déggone UDP ne back nañ GDC. Until few months ago, I watched a video in which Mama was responding to lawyer Usainu Dabo. mu ngi ko wax di ko caricature di ko tooñ naan bi daabo di wax toogul si kaw toogu bi de dafa toog si biir toogu bi soo gisee ni moo def naan dafa toog si biir toogu bi déggu leen ma de Togu ci kaw Togu bi dafa tok ci bir Togu bi di jema imagine how small lawyer Dabo is in the chair dafa tok mu si ci biir togu bi this is Mama Kande talking and caricaturing lawyer Dabo ñu form coalition buñ underestimate these politicians they follow their interests president Barrow wax na ko ne he's a political animal we hear the comments that they make. It's unfortunate that in this 21st century, by 2020, politicians are still thinking this way. si kon yéen askan bi waxal ngeen ibbi seen bot képp ku fi nekk xelaatal bu baax li ngaa def su sànni karta jotee nga sànnil koo xam ne dina la njëriñ sànnil koo xam ne li ngaa def ding si gis sa boppa li moo def ding si gis sa boppa President Barrow is making all efforts in Nyamina what we have seen and heard dalut xel the kind of money and efforts Bingspan pour win seed bi ahan kay jaral na ko because it's his first seed this was a test for him and mom, in their heart UDP lañ nekk di they did not see it as jongante with GDC ñi nga xam ñoo fa taxawal candidate waaye UDP it outright def nañ everything possible and they would have formed a coalition with any other party with any other party they would have allowed supported any other party because ñu ngeen defante ak président Barrow man nag ba ñu ma ngeen defante waaye let it be decent and let it not be to the detriment of the nation wàcc leen seen rhétorique yi seetaat leen seen bopp ak li ngeen a wax li ngeen a jiiñante sosalante gi fenalante gi yaaxante bi you are pulling each other down yéen a ngi build négativité boo xam ne mooy loolu fàttaliku leen ni ñi nekk ci président Barrow camp ñu ci bari ci yéen lañ bokkoon ñu ci bari ci yéen lañ bokkoon président Barrow camp yéen tamit xam leen ne Taylor Warro ay waay réew la woon you all used to belong to for the most part to UDP seen big donc si yépp ñiy jàppale président Barrow ngemba ko ñu ci bari used to be in UDP ñoom Lamin Jammeh ñoom suñ papa Dembo Baye Force ñoom Duusaano the list goes on ñoom Faabu Saane the list on xam leen foofu ngeen nekkoon it's pour ngeen bàyyi xel li nu mel élection ci xew na président Barrow win na with a landslide victory margin boo xam ne fas mënu koo daw now based on liñ jot a gis on the day of the election and prior to that gis nañ seen effort yi convoy yi borom ndombo tànk yi dem ci place yi politics of deception politics of intimidation moo fi war a jeex whether opposition bi mooy intimidate di deceive whether incumbent bi mooy intimidate di deceive these are things that we must check these are things that we must pay attention to yan la lañ say laan on both sides. under it the power of incumbency and what they can do. President Barrow went all the way out liñ ko ñaax rek mooy state resources yi buñ ko use Remember ne lii la Gambien si doon jooy remembal ne lii nga doon jooy yow sa bopp using state resources pour dépasser seen campagne daf fi wara jeex president baro di Gambian si li nga xamne mom lañ dundon tu contrat bobu lañ am ak yow yaag say ñooñ ak sa ministre yi ñom amat ba ak ñom sen bàyyi leen di Gambian si li nga xamne mom lañ dundon what goes around comes around nak ni ma len ko waxe ëllëg sibir si nga fe ñaka neka lo tok tok tamit duromba 20 naka 15 years 15 years du inshallah we hope to have that term limit in our constitution low talk talk du 15 years xamal ne there is life after the presidency and any law boo it will end up affecting you soo ko weddee yow yaa ne Gambian si dañ ci war a jànge yow nga jànge ci Yaya Jammeh jànge ci ak waa APRC e ana waa APRC e tey luwaay ñu fi tegoon yu bari mu ngi daanu seen kaw ci jamono ji mu ngi daanu seen kaw it's gonna come to this you the same way soo xamal ne lépp loo def it's gonna go that route jël oto nguur gi jël xaalisi nguur gi jël bagaasi nguur gi jël civil servants yi ñu bàyyi seen liggéey yi dem pour ne dañ leen a campagnal wala dañoo dem participer ci élection bi ministre si yeeg yeneen civil servants si jiitu ñi dem foofu noonu seen driver si Gambien si ñoo leen fay seen security Gambien si ñoo leen fay they were not on an official mission this is very unfair to the Gambian public is very unfair to the Gambian public seen essence si nekk seen moto yi essence si Gambien si dañ demoon pour politique. This should not have been the case. This should not have been the case, President baro bàyyil li ngeena a gambian si liñ dundon ci jamono yaaya jamme ngeen ko don kaas li way di uyo daf koy nuru ci tour bi ci jëmma ji ci jikko ji ak ci melo bi wa UDP bokolop yen lay wax You formed a coalition with Mama Kande. You've seen the lesson learned from this. Is this the trend? This works for President Barrow. Aglum si munti spend aglum munti def victory la pour moom eventually am na place bi ut send na a signal this can work in his favor Paski que ñu parewutoon na cross carpet ñu ragal ñu bari lii dina leen ñemeñ loo lim def is a calculated move President Barrow is campaigning big time with his actions with his actions am ku ma waxal laatir kunda jaamaan mu ne ma xee ci ñoo xam ne dañ daan uba kebetu mu ne ma man suma karta Barrow ko moom ma ne ko lu tax kooku mu li only reason being ñu ngi foofu seen koñ di leen gasal ay pipes pour lifin dañ fa indi defaraat seen pompe and and like so that they can start having water because new jóg guddi two o'clock three o'clock pour o'clock. ndox so kooku ndox mi leen baro di indil foofu rek tax na ñu change seen mind pour baro this is somebody who told me this from Latrikunda German I was talking to somebody yesterday who was driving and um, uh, I was supposed to have a meeting with the person. Munebori Tipagara Slaneka. The traffic was busy. This was around 6.37 sing on. We complained lan motax ñuy wara defar yoon time But they were like eventually well si yoon bi baxé eh? dina help nit ñi. Ñu ngi attribute lool to President Barrow. Banjo Road project bi. Wa banjo yu bari looking at that ne musuñu am that type of road in Banjul it brought a lot of controversy but yes ñu bari actually love it gox boo dem mu ngee dem fara feñe nii dem na baara naka eh, eh, ñoomi def fa hakalang road bi this weekend mu nga jom fara feñe base ak URR moom nga xam ne fa la jógee gis ngeen lim fa def he is trying to be very strategic so yeneen politicians yi including UDP mos pokkalo bu baax a baax a baax a baax COVID bi politicised nañ ko from the support that they have been given to the people from maalo bu njëkk bi ak yooyu ak 3000 dollars ci package bi ñoo joxee yooyu noonu yëpp it's been widely politicised ñun Gambians nag jox ñu tuuti rek. we believe, ne? We owe you our life. jox ñu tuuti ñu gëm ne we owe you our life this is exactly what happens kon si gàttal dinaa def more analysis si lu tax Gambia du dem show bi hopefully this Sunday on these elections and moving on I'll be coming up with who is your next president and we'll be trying to engage these politicians to discuss their policies, their programmes pour gindi leen askan bi def naa ko interview naa ñu bari si ñoom ñu bari si ñoom interview naa leen but I will bring them back now that election is coming interview naa lawyer Ousseynou daabo interview naa Fabakary Tombong Jatta interview naa xalifa Sallah interview naa Mama Kandeh am interview naa Oje Jallow am President Barola interview good. Akmay Hamed Fati, for whatever reason, he blocked me for the longest and has been running away from me. All the newer ones, I will try to bring them. Interview now Marisok as well. Ak Musa Yali Bachili. Interview now Marisok. Interview now Musa Yali Bachili. So basically, about nine of the parties, especially if you yaga, interview na Now ñom Bibi Dabok, ñom uh, Dr. Gumba Turek, ñom Dr. Ismail Sisek, ñom sen, we'll try to bring them over. ku si nekk si ñoom ñu wax ñu seen policies yi and what they have for Gambia dinaa leen jéem a indi ci lu Gambia du dem show bi hopefully they come ñu si bari si ñoom nag dañ maa daw but hopefully they do come ñu waxtaan ak ñoom seen policies yi waxtaan ak ñoom ni ñoo doxalee ak naka lañ pare pour yóbboo réew mi ak seen jaar-jaar seen paas liggéey dee bañ pour ñu waxtaanee yow doo bugg ne dañ laa jox suñu réew te yow doo bugg ñu waxtaanee yow sa pass daf ci am solo kon fofu lañu ñoo yef yi something that is very important ñaar mbir wala ñetti mbir yo xam ne xew nañ ma boolante leen ñom ñet taxañ ko ci lo xam lu am solo la te ñu war ko bayyi xel this issue of cyberbullying barki dem ba three days ago Fatou Camara journalist bi Fatou Network genn na mune dañ ko tëkku mune ñetti semaine ci gannaaw dafa am ko ko o. ne ko Euh, waa président Barrow camp ñoo ne nga bàyyi wax ci li nga wax ci président Adama Barrow soo ko bàyyiwut dañ laa ñu ngi ame sa nataal boo xam ne édiégoo nga ko defoon yaa ngi fa nekket def yarami neen taati neen dinañ ko publish ci internet bi mu ne ki ko wax loolu mu ne ko ne wax leen ñu publish ko man munuñ maa noppiloo fu ma Yaya Jammeh munta noppiloo fooguma président Barrow mun na ma faa noppiloo three weeks later fan yi passé barki démba ci dimaas ji am nataal bu doon saakuleet ci internet bi ñu ne nataali faatu kamara la it was proven ne nataal bi ci website lañ ko jëlee dañ ko photoshop jël kanamam gi def ko fa ci beneen yaram ñu ngee ñaawlu loolu whether campi président Barrow ñoo ko def again ma dellu si waat ci li ma waxoon rek dinañ gën a yaatal show bi gën a def gestu ci lii but since I'm talking about it here su fekkee ne ñoo ko def ñu ngi leen naan arrête képp ko mënta def loolu lu ñaaw la even su fekkoon ne nataal bi nataali Fatou Camara la sax moom la personally lu ñaaw la it's not good Is not right is not okay te ñu ko condemn Fatou kamara yaay la jigen la te surut lolu ci bopam sax personal am euh, euh, euh, privacy am kenn warut expose ak ku munti nek nak ak ku munti nek dañ wara a dissent gis nga difference in opinion warta tax ñuy def yenn yi ñàkk a d'accord nga gom lii ma gom lele eventually lakum dinukum waliya diin li ma ci gën a naqari mooy yu si bari ñun ñuy uyoo jullit ñoo koy def di ooyee suñ bopp jullit ba pare suñ paree di def yu ñaaw suñ paree toog xool gabari jàmbur xool doomi jàmbur xool keneen lebel boromam ooyee ko tur am luñ ko wax te fekka we have a big role to contribute ñun ñu ngay def lu gën a worst li ñoo jiñ ko ko ma ne yëf yi su fekkoon ne nataali kamara la si boppam it is wrong and is illegal actually pour génnee nataali jàmbur pour génnee nataali jàmbur si internet bi rawatina nag nga dem wécci ko because d'accordu loog boromam because boromam wax na dara si sa parti wala boromam wax na dara ñàkk d'accord si idea idea taxut Gambia that's what we do when we disagree with you we take you as our enemy when we disagree with you we take you as our enemy and we do everything possible we go all the way out to tarnish and destroy you ñu ngee ñaawlu lii def Fatou munti def it's not okay and we must be decent dañ war a am with ideologies, with ideas. We must be battling with each other based on policies, ideas, and how we can defend those things we say. waaye ñun Gambien si su nit dara d'accord loog mom rek fi ngaa jublu mooy saga ko xas ko fenal ko sosal ko jiñ ko lum defut it's not okay it is not so képp ku saaga Fatou Camara képp ku ko dugal ci internet bi noonu ay pictures nekkuloo di def the right ñoo ngi gis nag solidarité baa ngi bari ci internet bi in with Fatou Camara ku nekk ngi génn di wax yàgg na fi it doesn't make it right is it because it's Fatou Camara ñaata nit lañ fi gis seeni jëkkër seeni far jël seeni nataal diko publish wala leen ko traité ñaata nit lañ fi gis seeni jabar wala seeni jànqa gis ne seen jëkkër a ngee sàccoo ak beneen jigéen mu gis nataali jëkkër jooju ba tax mu publish ko this is not okay we condemn it in its entirety it should not only be because it's Fatou Camara touch one touch all syndrome bi dafa war a nekk loo xam ne Gambien si lu ñu miin la waaye ñu bari si ñun ci li ñuy doxal rawatina si social media ndiiraan bi la ñoo toppa rek am na ñuy bind sax di solidarité Fatou Camara te fekk di next minute ñu ngi still believe ne waa Fatou Camara lii moo ko def lii waaye because gis ngeen ñeneen ñi di bind ñeneen ñi di wax rek ngeen toppa ndiiraan bi Gambien si nañ leen bàyyi ndiiraan bi ñoo toppa nañ leen bàyyi ndiiraan bi let us be genuine and real in the things we do and say in the things we do and say we must be real whether góor ñi la or whether jigéen ñi la I'm not condemning the act of solidarity solidarity with Fatu Kamara pour nga solidarity ak Fatu Kamara that's not what I'm condemning that is a very good thing wrong is wrong and right is right su àdduna yëpp àndoon di def lu rong du mos a tax lu bon nekk lu baax su ñëpp àndoon di def lu baax du mos a tax lu baax doon nekk lu bon waaye at the end of the day we must make sure that we are genuine with what we say bul toog fële criticize caricature Fatou Camara nii la mel ne la mel lifin the next minute nga ñëw toog ne da ngaa solidarity ak moom let's try to learn to understand issues and how they work it is illegal to publish the person's picture or video of any sort without their permission. Ni rawatina a private picture jambor. wala nga dem def lu ni liñ def Fatou kamara. ak munti def let's be decent let's be decent if it is coming from a political camp that is very disappointing ñun ñëpp nekk in this field nak, wax len ko man jëlaguñ suma nataal jël ko def fa nataali jàmbur ne suma private part la comme niñ def Fatou Camara pot tusngal nañ ma solal nañ ma sobo yu baax wig yu baax maquillage ma rouge ma waa APRC def nañ ma ko waa UDP def nañ ma ko they do all the time all the time whenever we talk and say something loo xam ne d'accorduñ ci even li ma fi toog fii di wax ñu bari disagree with me it's okay nga disagree ak li ma wax waaye that doesn't mean ne da nga ma war a vilify that doesn't mean ne da ma war a sosal that doesn't mean ne danga war a def everything possible pour yàq ma su ma waxee loo d'accord teggil li ma wax nga teg fa leneen with facts nga defend li ngaa wax man li ma fi wax yépp we have the videos we have the pictures te evidently loolu moo xew sosuma jiiñu ma dara kenn Dulu ma wax ci president Baro dulu ma wax ci November 11 ci Yaya jamme ak njoñam ak liñ def dulu ma wax ci UDP dulu ma wax ci benen parti every single person luma wax fi ni ci Donald Trump these are facts these are facts lo ko tege so ko tege tek fa lenen wa bu fa tege with ay saaga ndey ay xaste ay sosalante ay jiñante lo xamne amut let's graduate from these things it's not right it's not right later on wala elek maxima dinañ def sentiments dinañ gëna a ci topic bi maxima dinañ def lool dinañ ci gëna a xuus su ko defé ma génn si boobu finally wax ci yëfi ososo bi this Ususu saga that Gambians are involved with. It's been going on for a while. Man talk na fii ay six seven months ago suma rakka bu baax bu nekk fii di jobate. nga he respects me and we do a lot of things called me and informed me about it Namu ususu bi dafa am ususu bu nekk di go on it is very nice it can lead you to financial freedom I mean and told me exactly how is it works supposedly so dugale $500 you make $4000 straight up i wasn't convinced i knew something is easy and i showed not in no interest he sent me a video to say i should watch it i didn't have the time to watch the video a couple of weeks later or a month later he called back ring me back to ask and i told him unfortunately i wasn't interested i let go Madis Koko Suma spouse and <laughs> Momsibo Jali. Jalimadi asked a few questions and equally concluded that it wasn't the math wasn't adding up. It wasn't right. We never got into it. Taking a month since Bobo Beteji, I'm every day hearing different news. yàlla def na comme ni ma ko waxee I've been busy with a lot of things and could not do any analysis on this waaye gi nga doomi aadama ku si nekk danga nga war a xalaat li ma leen wax ci gannaaw rek politicians yeeg ñëpp nit ku nekk the human being has the ability to be the architect of your own destiny ku si nekk you have the ability lii kàddu goo xam ne la maa ko njëkk a digga in 2001 or 2002 when we were doing our Gambs and Reconciliation, time bobu mangi nek xalé, and Reconciliation between St. Augustine's and Gambia High School. I was the chairperson of the St. Augustine's and Gambia High School. This was my baby and I was the chairperson of the committee. When we were doing the closing ceremony at Gambia High School, Honorable Halifa Sala mo ñew tok fofu stage B. he was one of our invitees at the time with the former vice president Aissatou Ndiaye Seydi, ñom minister Henry and a lot of people were there, Andres Ndongata. And when he took over the podium, the first thing that came out of his mind is the human being has the ability to be the architect of his own destiny. It sink in my head. bi ma demee ba mag ba xàmmee ràññee ma gën faram-fàcce nit ku nekk sa te ñun gambien dañ war di xalaat di kisi kisi di gestu ci dara ñu bari ñu ngi complain yi lele you look at yourself bu baax certain things are too good to be true certain things are too good to be true I've watched some videos in which I had people tell their stories. People came to me until these days, people are coming to me to tell their stories. To tell their stories. It's sad and unfortunate that we can fall victims of something suñ nekkee si dara supposedly mu melni lu neex lu baax wala yakamti moy li ma wax si gannaaw rek ñun diiran lañ dé def gambien si around the world lu nekk diiran la suñ commencé dara ñepp ak sé japp ñepp Set ko rek suñ commencé business ben façon ngi business everybody jumps on it dama ko dé wax I say this on my shoes. Set ko bir Gambia suñ commencé dara ñepp get on it bitim réew the same thing dëkk yuñ nekk seetal Gambian, si fuñ bari ñun ñëpp ci benn thing la ñoo spécialise dëkk boo fi dem fu Gambien si nekk su dee America fii la if they're doing warehouse job ñëpp si warehouse dañoo liggéey and everybody is comfortable and confident and continues to work in that warehouse and will do that for 10 20 30 40 years remaining at the same level duñ jóg sax nag duñ paree éeg sax soo demee si warehouse sax nga seet naka ngaa éegee climb the ladder but we remain at the same position because pugaluñ suñ boppa lu bari we are not creative we don't find ways of how we can get around things wala boo su kenn doon jéem a def sax dinañ seet naka la ñoo demee say laaf nga dem si dëkk boo xam ne si hotel industry bi la Gambien si di liggéey ñi fa nekk yépp si hotel industry bi lañoo liggéey nga dem dëkk boo xam ne si parking la ñëpp si parking lot yi la ñoo liggéey nga dem dëkk boo xam ne si health care bi la ñoo liggéey Gambien si fa nekk yëpp si health care industry bi la ñoo liggéey we are not creative, we are not innovative, we like to follow what people do. media bi seet ko léegi Gambians si yëpp ay Facebookers lañ ñëpp ay journalist lañ everybody just wants to do these things live videos loo am xam-xam loo amul xam-xam ñëpp experts lañ and analyst lañ dañoo analyse euh, lu nekk dañoo analyse dégga tel ne matti ga damm na jigéen ñi fi nekk back in the days dañ daan top, di dem Dubai koo wax Dubai Dubai Dubai Dubai fa la ñoo dem shopping ñoom ñëpp di guutu Dubai bàyyi bagage yi Dubai indi jaay Amérique ñu toog ne déedéet mm-hmm. India xew ñëpp buubu India India India India ñoom ñëpp dem suñ ñëwee la def bari wuñ ñun bari wuñ suñ demee India wala dem Dubai dem China indi so many things suñ ñëwee all of those things nga am 100 Gambians 200 Gambians 1000 Gambians ci benn dëkk yéen 50 people ngeen dem ñëw indi at some point ngeen seet ko ñi jaay lekka ñëpp dugga ci jaayam lekka indi kong indi géeja indi netetu jumbo mbaxal yi ñëpp jaay ko you are all targeting the same people be creative moo tax njaay mi di lamba moo tax njaay mi di lamba am ay maire kenn ñëw initier rek ne dafa jaay cere ñëpp dugga ci njaayam cere if there are five six stores that you can supply cere bi <laughs> over fifteen people ñëpp ne dañoo jaay cere because mën nañoo defar cere six stores yooyu amuñ market bi seen cere bi dafa lamba du dox kii mënta jaay cere kii jaay mbaxal kii jaay géej kii jaay netitu or something ñun ñëpp we are copycats we are copycats duñ create duñ invent duñ def dara dañ bugga bu yomba bi looloo tax ñu bari dugga si ususu bi bugga bu yomba joxe 500 make 4000 xana kon ñëpp retire that's corporate money that's what eds are paid that's what executives are paid in a lot of places If you make $4,000 a month down by investing 500 and you keep rolling over and investing that 500 over and over, it is easy money, it's cheap money. And we should think about it. creative. Let's try and work hard for our living rather than bugabu yombabi. Rather than bugabu yombabi. nañ leen di gestu di kisi kisi before we get into anything because there are legal ramifications this is pyramid scheme te loolu si boppam dafa illegal dañ dee dugal suñ bopp si problème yu bari te duñ ko dee xam suñ paree nag di blame ay nit suñ paree di blame ay nit I will do more proper and critical analysis on this waxtu bi dem na suma team baa ngi toog gambia di ma xaar dama war a meeting with my team in gambia i mean i told you earlier every wednesday i have a staff meeting and i need to get back to that pour jangal xalé yi waxtaan ak ñom ñu waxtaan ñu diso ñu yokante xalaat wax lan moy issues yeeg problème si ci suñu institution bi pour yokk ko mu gëna dem kanam li dafa am solo ci lu nekk te lolu lay defi wax naa leen ne tey la november 11 si kanam nii rek su ngeen seetee di ngeen gis vidéo si november 11 amin family member si november 11 yi ñaam ñu waxtaan ak ñoom incha allah ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen sant si seen déglu bu rafet li ma gis Banjul la Pa Ousmane Diouf nekk ci seen gannaaw dekkal leen ci gannaaw microphone bi kàddu gi li fi rafet si yàlla la lu si ñaaw si ñun la ñu ngi leen ay bëggee di leen di leen sant si seen déglu bu rafet ak seetaan bi chia du leen wàññi waaye dina yokk a ñeneen képp koo xam ne gisuloo si sa boppit maa ngi lay jéggalu di nga si jàngee keneen ak keneen dinañ si jàngee incha allah am ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax a baax ñu ngi leen ay gërëm di leen sant si seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet bu leen fàtte di toppa gambien talent su dee bi mooy seen njëlbeen yoon ngeen ñoo toppa like leen suñ page bi si Facebook gambien Talents Promotion leen ñu si YouTube bi gambien Talents am TV leen ñu Instagram Snapchat Twitter ak am TikTok yépp ak LinkedIn gambien Talents Promotion dañ fi nekk pour gindi askan bi pour jàngal askan bi pour xàmmale askan bi ñu jàngal leen ngeen jàngal ñu ñu weccee xalaat ñu jàngalante incha allah loolu moo ñu tax a jóg ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax di leen gërëm bi leen santa di leen wax ne rek ngeen continuer di ñu toppa am share leen vidéo bi donate leen ñu ñun we are a non profit public broadcasting network seeni bët la ñuy xoolee seeni gémmiñ la ñuy waxee seeni noppa la ñuy dégloo jàppale leen ñu bu baax a baax a baax mun ngeen ñoo donate yéen ñiy seetaan léegi di ngeen gis mu ngi a wax ngeen seen ñu ay stars su ngeen ñu senee ay stars di ngeen ñu dooleel ndaw yu ñu nekk Gambie ñu leen a jàngal métier di ngeen leen mun a dooleel bu baax a baax a baax pour ñu continuer di def liggéey bi di leen indil information bi ngeen soxla yëpp I mean every single time kon donate ñu ay stars subscribe leen to bi we need at least 115 people to subscribe to our page for $5 a month fii si Facebook bi next seen comment section bi di ngeen fa gis green button with a love sign su ngeen ko cliquer dina leen yóbbu to a link boo xam ne di ngeen mun a contribute foofu noonu so far only fifteen people rek ñoo subscribe te ñu ngi am hundred and ninety eight thousand people ñi ñu nekk di follow kon su ngeen jàppee si loolu dina am solo bu baax a baax a baax donate leen ñu through PayPal wala ngeen yónnee ñu ko Gambia si suñ office bi seven eight three three five two four mooy number to dial 7833524 lu ci waaye am rek pour donner ñu ko xeebuñ dara ngeen laajte Binta Cissé suñ accountant bi wala boog Fat Samba mi amee place bi foofu noonu ay ndaw la ñuy jàppale ñoom la ñuy empower ñoom la ñuy jàngal métier ñoo leen a indil lépp lu ngeen a gis ci Gambian Talents moo tax ba Pa Ousmane jël e back seat lu bari defatuma ko ci jamono ji ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm leen santal li ma gis Banjul la woon fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf jërë ngeen